waaw ñu ngi sant yàlla julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi sallam et puis di jaajëfal suñuy dirigeant en particulier suñu président ak euh, staff bi mu àndal yëpp si cadre idéal bi mu ñu andi pour ñu mun a liggéey euh, di jaajëfal suñu vice président euh, fan fii si la nekk tamit préparateur physique donc ñu ngi liggéey si championnat bi ñu jëm donc jongante boo xam ne dañ fay doon gan mais dañ fa bëgg am taxawaayu xar kanam bu bu diiñ si li ñu sunuy dirigeants yi sas ak li ñu yaakaare dem foofu jàng phase aller bi def suñu bilan xool lan la ñuy jox ñu door a fixer suñuy ambition par rapport à ça donc ñu ngi liggéey am ay xale nag yu bëgg a liggéey bëgg a ànd ñun donc staff technique bi ñu déggal ñu ñuy seet nu ñuy def rek ñoom ñëpp ba ñu mën a jouer cent vingt minutes te bañ a sonn di leen ñaanal ñu bañ a gaañu. dugg si championnat bi si bisimilahi rahmaani rahim et puis génn seeg alhamdulilahi rabil alamin donc loolu la ñu tàmbali nii liggéey boobu mande seeg samay collaborateur euh, ñu ànd ñun ñëpp bokk benn kàddu ñaa xale yi pour yar teggin liggéey noppaleku pour championnat bu ñëwee ñu mun a am taxawaay bu rafet bu ñu yaakaaree. Euh, lan mooy seen planning journalier pour entraînement yi. waaw euh, chaque suba dañuy def travail physique endurance. intégré si musculation ngoon bi bu ñu demee ñu def technico tactique nu défense bi di taxawee bu ñu nangoo balu équipe bi ñuy jouer nu ñuy marqué bi buñ ko ñàkkee aussitôt nan la ñuy def ba jël ko ak fan la ñuy teg suñu bloc d'équipe loolu mooy sunu donc dañuy am chaque jour deux séances d'entraînement suba si dañuy yëngal xale yi bu baax chargé leen ba du ñu mën a dox ndax bu ñu demee si phase technico-tactique bu ñuy waxee ñoom ñu mun ñu dégg xam nga boo sonnee doo tal waxtaan doo tal commentaire donc concentration bi fa lay gën a bëree si liñ leen di jàngal nag nii la ñu bëgg a taxawee ren bu ñuy joué équipe bu indi xar kanam bi nii ngeen war a taxawee soo leen nangoo seen bal ngeen def nii def nii ñu jëm si kanam suñ ko pertee aussitôt ërtal euh, leen ñoom pour ñu sànni bal bi bu ñu footballee ngeen jëm ko nangu et bu baax donc loolu mooy planning bi ñu fi nekkee pendant dix jours suñu paree nag commencé dugg si coup franc yeeg corner yeeg et ku nekk individuellement ñu évaluer la xool lan lañ lay dolli ak lan la moo la manqué. seen objectif pour saison bi ñuy jëm. waaw mooy d' abord maintenir moom laa wax sànq dañuy dem pour maintenir équipe bi comme dañ fi gëj te boo gëjee si dëkk da ngay ñëw ak tey dañuy dem xool bu phase aller bi jeexee ñu évaluer sunu bopp et nag bu boobaa ñun ñu xool lan la ñu mën a uti. mais lu ñu waay may ñu jël ko te boo bu ñuy jongantee yow nga sàggan sax ñu foqati ko donc ñun xar kanam boobu la ñuy taxawee voilà dinañ def suñu kéem kattan daal ba duñ ci yaafus comme ni nit ñi di waxee dinañ ñëw ak suñu fulaak fayda lu ñu waay may ñu jël euh, lu waay bàyyi nag ñu nangu ko. Euh, ndax équipe bi am na ay renfort yu bees. am nañu am nañu renfort parce que euh, ñi fi nekkoon daaw am na ñu ñu ñii ëpp li ñu joué téye nañ leen. muy jour yi nekkoon deuxième division min championnat bi yéegal équipe bi ñoom mag yooyu yëpp jël nañ leen léegi boole nañ leen ay xale yoo xam ne dañ leen ciblé woon ci championnat bi ñiy jogee première division deuxième division même championnat bi ñu doon joué euh, suñu adversaires yi ak beneen poule bi bon ñi ñu yaakaar ne ñoo fa gën a xarañ bokk si suñu philosophie football indi nañ leen euh, ñu ngi koy commencé togg nag ko léegi yëkk bi moo des ñu ngi xool ndax dina saf xorom wala kaani bi dina ëpp donc sa dépendant ci semaine bi ñuy génn nii rek ak match amical yu ñu am si la ñuy évaluer xale yi xool ba xam naka nag ak nan la ñuy def. ban état d'esprit la sa groupe nekk ndax pare nañ euh, pour saison bi jëm nii. waaw waaw état d'esprit bi ñu woon vraiment jox nañu confiance parce que ñëpp bëgg a liggéey. Euh, même ñun entraîneurs yi dañuy tardé ñoom la ñuy fekk ci car bi te d'habitude euh, phase hivernale bu jotee xale yi dañuy sonn ba toujours da ngay dem seen néeg di leen yee mais groupe bi ñu am nii bu ñu leen waxee huit heures et demi ñoom ñëpp huit heures et quart ñu ngi si car bi ñun ñooy xaar ba vingt cinq ñëw defe ne ñoom tardé nañu te toujours ñun ñoo tardé donc euh, état d'esprit bi ñu am mooy ñoom bëgg nañu fi ñu jëm bëgg nañ ñu jàppale et ñun nag ñu leen di jox xam-xam bu néew bi ñu am pour ñu taxaw taxaw bu rafet ci championnat bi. sa dernier mot. waaw di ñaan HLM ñëpp ñëw parce que équipe bi équipe bi HLM moo ko moom. sympathisants yi ñu am suñu mbokk yeeg suñu xarit yi donc ñëpp ñëw jàppale ñu comme ni ñu defoon daaw euh, dañ ñu jàppale woon gunge ñu vraiment ñu sentir leen suñu ginnaaw si lu baax ba équipe bi yeeg euh, deuxième division donc ñu ngi leen di ñaan ñu ñëw jàppale ndax yi gën a mën a def seen liggéey gën a sawar xam ne ne vraiment am na ñu nekk seen ginnaaw euh, supporter dafa baax trop si équipe mais su fekkee supporter buy bu max équipe mu dem la donc ñu ngi leen di ñaan HLM ñëpp jàppoo xool yi doon benn ñu liggéey comme nu ñun staff technique bi ni ñu nekkee benn euh, parce que boo ñëwee doo xam kan mooy entraîneur principal doo xam kan mooy collaborateur parce que man bëgguma wax ay adjoint ay collaborateur lañ ñoo xam lépp ñun ñoo defandoo ñoo jàngandoo ñoo footballandoo euh, donc dañ ma jiital rek mais ni ñu nekkee ñun noonu la ñu bëgg su nekkee mel doon famille moom laa leen waxoon daaw day am ay mag muy ñun am ñu topp si ñun am seen i rakk donc mag yi nañu muñal rakk yi te rakk yi nag nañuy déggal mag ñi donc euh, si loolu la ñuy demaat ren di seet lan la ñu yàlla di may ñu koy ñaan vraiment bu naree ñaaw daal na mel nii saison bi ñu génn nii incha allah. jërëjëf merci beaucoup. fu mu nekk nii bon ñu ngi ci phase préparation physique booy ils sont garés là ñu ngi fii depuis sept sept jours donc euh, travail plus endurance bi on fait un tout en fait travail d'endurance travail de euh, VMA comme tey séance bi ngeen fekkee VMA bi et puis liggéey un peu le corps aussi salle de musculation pour euh, préparer physiquement booy. seen planning euh, journalier bon actuellement moom on est sur euh, deux par jour matin bi physique et puis ngoon bi ñu rentre ci séance euh, technico-tactique stade donc matin bi on fait que physique ah travailler d'endurance mooy li may wax physiquement que ça donc booy dañuy dem repos actuellement añ ngoon sieste après ñu reprendre 17 heures séance stade Niary waaw dernier moo di ba déjà di leen remercier et puis euh, di woo encore une fois de plus population HLM bi yëpp pour ñu jàppale équipe bi euh, phase bi ñu nekk euh, ñu ngi ci phase de préparation on met les moyens qu'il faut et on espère vraiment avoir le soutien de toute la population HLM et puis di leen remercier yéen ñi ñëw seet si ñu tey. entraînement moom ñu ngi si kaw parce que bu ñu reprendre yàggul tey ma suñu huitième jour deux séances la ñuy def matin ak soir quoi. mën nañ xam euh, euh, sa objectif personnel ak euh, collectif. waaw en tant que objectif personnel moom ñëpp xam nañ ko mooy fexe génn Sénégal rek comme que football Sénégal moom ñëpp xam nañ nu muy demee quoi l'essentiel mooy def li nga war a def ba yàlla suturaal nga génn fi ambition collectif yi nag mooy yéegal équipe bi première division parce que équipe bi nekkoon na fa wàccaat mais ren jii nii am nañu ambition collective boo xam ne tey jii. dañuy permettre équipe bi yeeg première division quoi pourquoi pas sax coupe du Sénégal ak ce que actuellement waaw loolu moom c'est trop tôt pour le parce que ñoo ngi soo commencé parce que championnat bi démarré pour ñu xam mu pour ñu mun a xam ndax euh, dañ ko attendre wala il faut ñu championnat mun a daw tuuti parce que tamit ñoo ngi soo commencé championnat bi dawagul munagoo définir. Euh, objectif bi quoi mais au fur au fur et ñuy dem championnat bi gën a dem là on peut diir que ndax dañu am ambition yéeg wala maintien quoi mais pour le moment moom ñëpp une ambition mooy équipe yeeg première division. waaw di wax waa HLM bi nañ ñëw rek jàpp si ginnaaw équipe bi parce que tamit équipe bi seen équipe la bu yéegee ñëpp la yéegal quoi dañ ñëw taxaw si ginnaaw équipe bi ñoom ñu yëngal ci kaw ñu yëngal suuf rek comme ni ko gars yi pouvez être au milieu yéen def leen derrière voilà venez s'il vous plaît kaay na yow kaay na yow ci digg bi ñëw voilà. on on vous laisse d'abord vous présenter. Oh, merci encore pour la parole moi c'est Maxime Ndior milieu de cloître HLMFC. Je suis d'origine camerounaise. Pourquoi le choix du Sénégal et des HLM? Bon. Petit HLM, c'est un nouveau club qui a beaucoup des ambitions et dès que le coach a fait appel à moi, je, n'ai pas dit non parce qu'ils les projets, les, bons, projets. Surtout la montée Ligue et nous sommes là pour ça. Je suis là pour ça, pour aider l'équipe à monter. Euh, mon objectif personnel, c'est de marquer beaucoup de buts pour l'équipe. pour qu'on puisse euh, avoir tous les trois points à chaque match et permettre à l'équipe de, de gagner la, une place en Ligue 1 la saison prochaine. Ah oui, oui, oui. Avec la préparation que nous sommes en train de faire, vraiment, je peux dire que oui, nous sommes prêts, le groupe est vraiment prêt parce que nous avons du, du très bon, du très bon, surtout que nous avons un bon, de bons entraîneurs, un bon préparateur physique. Donc je pense que nous sommes prêts. à relever le job. Bon, je ne peux que dire merci euh, à l'équipe HLM, à la population de croire en nous et de continuer à nous supporter. Et on va relever le défi. Merci.